président lii lan la. lii écharpe la. kii moom la ñuy takkal ñi nga xam ne suñuy invité lañ ñi nga xam ne ràññee nañ leen ñoom lañ leen di jox. ginnaaw bi ñu la nuyoo drapeau chef de l'état nekk sa dëkk nga nekk doomu Kaolack lépp loo am Kaolack moo la ko may nga nekk président CNG ñëw fii Kaolack bi nga ko organisé mu xew fii ban satisfaction nga ci. am na satisfaction. dans tous les sens satisfaction à cent pour cent ndaxte fii laa dëkk fii laa am fii mooy sama cosaan buñ toogee benn wala dañoo euh, indi Darou Sultan fii ci kaw la ma ñëw depuis ñetti fan mu mel nii fees depuis ñetti fan ni ñu mobilisé wu depuis ñetti fan ñuy am ay combat yu mucc ayib muy neex di rafet dañuy kontaan ci loolu nit ñu uy nañu ñu sant leen ci gërëm leen ci ni ñi ñëw nañ fekkee si senegal fekkeel si CNG muy sport wax xam ne ñun ñoo ko mu jéggaane wuñu ko loolu am na solo trop ndegam demee na noonu nag dañuy gërëm ñëpp presse bi CNG bi amateurs yi euh, euh, supporters yi fans club yi ñëpp képp ku teew rek gërëm lañ sant la lii lañ doon xaar ñu lañ doon séntu ci kaw Kaolack mu génn fekkee li nga xam ne moom la leen CNG indil def nañ ko gërëm nañ leen sant nañ leen loolaa mooy li nga xam ne laa mënoon a wax di leen gërëm yéen presse bi nga xam ne depuis lors yéen a liggéey bu mucc ayib yéen a ngi ciy jàpp yéen a ngi liggéey di loo xam ne vraiment macha allah liggéey bi nga liggéey liggéey bu jaar yoon la waxoon naa leen ca départ bañ ma installé ma ne la presse yéen suma premier partenaire yéen a ngi koy a koy jëfee depuis trois jours yéen a ngi maa leen ci gërëm leen di sant vraiment. président ñu ñëw ci Kaolack. mobilisation bi dañoo gis 3 heures bi muy jot stade bi fees na dell foo sànni mbàtt mu tag loolu lan la. Eh, bëgg làmb ak cofeel 2007 nii lañ ko defee woon 3 heures fekk na mu fees dell te aussi ñu delloo buum ca booy booy ba. ba may ba may réunion Dakar di ko wax nit ñi ñu naan ma ah day tàng heure boobu nangam ma ne ko ah ko ku fa ñëw 5 heures doo place. yéen vous l'avez constaté xam naa waa Kaolack ni ñuy mobiliser woo xam naa leen ci seen Pastef xam naa leen ci li nga xam ne noonu la ñu bëggee làmb moo tax ma ne bu ngeen ñëwee incha allah bu dee amateur du ngeen rus bu ngeen ñëwee Kaolack bu dee supporter du ngeen rus bu fekkee làmb rek la ak mobilisation da ko fekk Kaolack te gis ngeen ko yéen ñii xeju fi mais comme fii lañ am nañ ko fi defee rek ñu muñalante euh, bañ a ne duñ buuxante mais ñu xam ne làmb moo tax lii am mais vraiment ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp di ne yàlla yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg mu defal ñu jàmm ci làmb ji ñu yàgg di déggoo di juboo di am vraiment ay jàmm yu bëri ci làmb ji jërë